Mansour la agogo nijaayu la Mansour mi agogo nijaayam la moog yaayam a bokk ndey ak baay maa leen jox information bi ñoo bokk ndey ak baay agogo ak yaayu ñoo bokk ndey baay nijaayam akkan la ndax Mansour ndeysaan sama xarit la moom Mansour Maam Ndiaye Savon wax Maam <laughs> yow laay déglu lu mu wax. maam Ndiaye ah waaw waaw ah, baax na. ma ne guddi guddi nii laay jaar tey. guddi guddi Pikine. nii laay jaar. nam nañu maam Ndiaye de. barki borom Touba mais Aziz yaa mën yaa ëpp doole. Aziz yaa mën yaa ëpp doole. borom xadara bi borom xadara bi yàlla yàlla defal jàmm. borom xadara bi yàlla la yàlla defal jàmm maa ngi nuyu sa waa koñ waa Grand Mérine waaw maa ngi lay nuyu ak képp kuy toog ak maa ngi lay nuyu sa Grand Mérine nee la. nee naa la ka mën ak ka ngay bokkul barki borom Tuuba ma ne Fallou Tall kaay toog kaay toog Boy Jules mu ngi si état Agogo mu ngi si état tey Boy Jules boo koy indi woon tey loo koy bëreloo Fallou Tall lu ma koy bëreloo mais am mhm. su ma waxee Boy Jules lu ma koy bëreloo waaw damay bañ waa Agogo mere ma damay ñëw si agogo dañuy paasante. mais mais mais mais tey li la wax sànq rek. kañ la kañ la. kala kan. Franc Bombardier. Franc Bombardier face à face dimanche. nga ni. Youssou Ndour Talfa. Mamadou Ndiaye Diakha Thiam. waaye échec dañu leen jël waaw. waaw waaw. kan ak kan mbuur guddi guddi mbuur fii dinaa dem mais mais mais mais AS Pikine day football dimanche man ak Guédiawaye Guédiawaye Guédiawaye AS Pikine dimanche Guédiawaye AS Pikine ndeysaan ndeysaan waa arène nationale lañ tuddee drapeau Fatma jël ñoom la Noura waa Noura waa Noura li jekk na waa Noura sama xarit bi ndeysaan ndeysaan sargal jigéen ndeysaan Fatma jël leen woo leen Fatma woo leen booy woo leen woo leen mais Boy Jules ñëw Boy Jules Boy Jules xoolal Boy Jules. damay doog a wàcc. Boy Jules ñu ngi xool loxo yi. arme nga liggéey na. Agogo liggéey na. ndeysaan. Boy Jules Boy Jules liggéey na. Boy Jules liggéey na. Agogo ak Boy Jules palpe Agogo di palpe Boy Jules di palpe Boy Jules di palpe Agogo dëgg la sama ndeysaan agogo agogo Boy Jules agogo ak Boy Jules agogo fan ma agogo mi pare na mais Boy pare na jërë ngeen bokk yéen toor na ndeysaan journée Ouzin la mi ngi consulté ay juge moom arbitre bi mi ngi consulté ay juge moom arbitre bi ba tey arbitre grand combat de la soirée Agogo Boy Jules mi ngi lewatoo Boy Jules moo ñu woon ginnaaw Agogo moo kanam Agogo mbokk yi jugee ci rafet Boy Jules ci dóor. waaw moo nekk avantage am ka xeex bi. mais Boy Sil jàpp na léegi boo jël. ndeysaan Boy Sil jàpp na. mais est ce que ni muy jekkoo na. Boy Sil agogo daa mel ni jàppam moo gën a baax. agogo Boy Sil na ko Boy Sil lu muy def nii. Boy Sil jàpp na. Boy Sil Boy jàpp na ñoom ñaar agogo. bi laay Agogo Boy Sil mi ngi door Agogo Boy Agogo Boy Sil Agogo laay la Agogo oh! daan arbitre c'est le maître du terrain. arbitre c'est le maître ah, man am na lu ma gis de. Baye Balla am na lu ma gis. Boyzine ak agogo bi jël am na. jël am na. kan moo daan ah yaa ngi sañ a wax de. am. waaw am na kan moo daan. ah kan moo combat jàmbur kii dafa daan kii daa daan dafa daanu daa daanu jël bu leer na nga jël nday mbër yu ndaw yi kii dafa ko def ko daan kii barka la ko daan wax na yàlla ko daan kii moo daan combat bi daa bëgg yow yaa daan yow yaa daan yow yaa daan waaw président président am na jël. ah président bi jël am na. waaw ah, wax dëgg yàlla waaw mais waa CNG rek. waaw yoon ñu may la ñuy def rek